Pape Marie ñu ngi lay nuyu. Sylvie Faye euh, maa ngi lay euh, nuyu di nuyu auditeur euh, Rewmi FM ak képp kuy déglu rajo FM. ngay journaliste waaye itam analyste politique laaj bu njëkk bi tey parti au pouvoir président Macky Sall amoon carte blanche choisir candidat Benno Bokk Yaakaar ba léegi xamuñu kan mooy représenté Benno Bokk Yaakaar ci jongante élection présidentielle yi noo jàngatee yeexaay boobu la. jangat bi ñu mën a def euh, Sylvie Faye euh, ci euh, yéexaay bi ñu nemmeeku ci nommé benn benn benn candidat Benno nekk na loo xamante ne loolu la ñuy gis ci politique Sénégal c'est-à-dire que tey politique Sénégal dafa nekk loo xamante ne. dañuy jël doole bi yëpp jox ko benn nit boo xamante ne Sénégal yëpp falaguñu ko. Mm-hmm. association la ngeen am am seen association benn nit ngeen jiite ko mu yaakaar ne moom mooy yàlla donc dafa nekk ci Macky dem ba nit ñi yaakaaroon ne ñoom dinañu moytu erreur yu parti socialiste defoon parti démocratique sénégalais defoon jàppoon ni Abdoulaye Wade mooy la constante ñu toog fii ba léegi nii nii ni des na presque dix mois tey ñu ngi dem des na euh, juróom euh, benn weer ba léegi kenn xamagul kenn mooy euh, candidat Benno Bokk Yaakaar wala candidat APR loolu premier responsable bi mooy Macky Sall parce que moom moo yóbbu woon coalition boobu gëmloo leen ni man ko ba léegi du ma ne waaw du ne déet. Mm-hmm. pour de mil candidature 2024 mu yóbbu nit ñi ci doute boobu dem ba léegi mu génn rek ne waaw man daal yaakaar naa ne du ma voilà jàpp naa ne du ma nekk candidat te loolu indi na benn pëccëxoo boo xamante ne nga gis ay nit yu bëri génn ku nekk di teg voilà samp ndëndëm ne ne moom mën na nekk candidat parce que ñoom ñi ne dañu nekk ay candidat vraiment ñoom ñoo njëkkoon ne Macky Sall mooy seen candidat ñoom ñi nekk noonu yëpp di xëccoo tey. Mhm. ñooñu na ñoo newoon sénégalais yi ñun mënuñu mënuñu amuñu xam-xam pour vraiment jiite Sénégal makisal kese moo am vision pour mën a euh, jiite Sénégal. Mhm. ñu dem ba Macky Sall ne leen man mënatuma ñoom ñu nekkoon léegi am nañu doole pour kii loolu moo indi pëccëxoo boobu mhm. pëccëxoo boobu dem na ba juróom benn candidat génn ci biir Benno Bokk Yaakaar mën nañu ne waa APR kese la sax mhm. te loolu dafay wane ni Benno Bokk Yaakaar ndekete nu mu réyee nii yëpp ndekete benn loxo mooy dox mooy APR donc yooyu yaram bi ngeen di gis nii mu duuf ni yëpp ndekete loolu yëpp ngelaw la kon benn loxo mooy dox mooy APR donc loolu indi na loo xamante ne ci biir APR ay nit ñoo xamante ne euh, musuñu juboo su ñu wax benn kaddu boo xamante ne dañ day dem ci euh, tabax APR mais ñoom ñoo taxaw ku nekk génn te ci loolu da ngay gis am na ñeent ñoo ne ñoom ñooy faw li ñuy wax ñoom laa ñoo xamante ne nit bu taxee toogee sax di nelaw day jàpp ni Amadou Ba en tant que premier ministre Abdoulaye Daouda Diallo en tant que koo xamante ne dafa jege président de la République ñoom ñëpp dañu jege président de la République mm-hmm. mais ñu gis ni Boun Abdallah tamit jege na bëgg na nekk candidat Benno Bokk Yaakaar nga gis ni tamit euh, Abdoulaye Daouda Diallo moom tamit nee moom dafa bëgg nekk candidat Benno Bokk Yaakaar mu am ay nit yu mel ni euh, euh, comment dirais-je Mame Boye Diao ak keneen ak keneen ñu ne ñoom dañoo bëgg nekk candidat Benno Bokk Yaakaar donc loolu président de la République dem na ba moom situation mu ji ba moom mu indi ko yenn résultats yi moo ko waral moo waral tey ñemewul moom ci boppam même bu dee sax moom mooy constante bi mais ñemewul tànn kii bàyyi kale te loolu moo tax ba léegi nii. Mhm. Sénégal li ñuy euh, tëggee suñu parti politique yi il faut que ñu changer at ko. parti traditionnel yi il faut que ñu xoolaat seen bopp. Mhm. xam ni li ñuy def nii il faut que ñu évoluer ñu mhm. gën a liggéey de telle sorte que démocratie interne ci parti politique yi ñu am ko président de la république. Euh, mën a nekk président mais ut dauphin boo xamante ne ëllëg moom bu fi nekkulee parce que mbirum yàlla. Mhm. kenn xamu ko. donc moom mu mën a euh, doxal euh, parti bi en interne ak coalition yi en externe. dëgg ba tey Benno amagul candidat waaye ay grosse pointure ñoom ñi ngi fësal seen bopp ku ci mel ni amadu Ba mën nañu wax ne sax tàmbali na campagne am ci cérémonie ouverture bu mu doon présider wàllum sport foofule ca Kaffrine militant yi nag accueillir nañ nañ mbooloo bu doole sax bu am doole moo ko fa daal ak accueillir noo ko jàngatee. waaw jàngat bi ñu mën a def mooy loolu erreur de communication la. Mhm. gis nga boo toogee ak say nawle nga jàpp ni vraiment euh, say nawle nga jàpp ni ñooñu euh, xam-xam bi nga yor wala dayoo bi nga am ñoom tamit am na dayoo yooyu am na ay tànn béer yoo xamante ne jarul nga koy nga ci dugg mhm. bul profité ci ay situation pour euh, wone sa bopp wala wone ni yow yaa yaa nekk candidat bu gën a bu gën a gën a baax bi mm-hmm. loolu ay erreur la donc tey nga gis ni Aliou Ndiaye subitement ci benn émission moom tamit mu taxaw ne leen man ba keroog ñuy euh, fal man pare naa mm-hmm. pare naa wax boobu dafa wund lu bëri mais Amadou Ba lu mu war a éviter mooy éviter ci ay situation yoo xamante ne mbirum dëkk la c'est-à-dire que on parle de la nation mm-hmm. mooy Sénégal moo fa daje du APR moo fa daje du Benno Bokk Yaakaar moo fa daje parce que ay nit ñu ngi jógee fu ne pour participer à ces phases nationales là mm-hmm. donc loolu foofu politique amu fa place te benn xam euh, borom xam-xam France dafa ne Colbert euh, Colbert Rivail moom dafa ne communication d'émission mm-hmm. démission de la communication la cest que képp koo xamante ne da ngay dem di euh, communiquer ci média yi loolu yaa ngi yàqal sa bopp ci ay communication parce que foofu ñi la bëggoon sax dañuy ne mais foofu est-ce que place am la mm-hmm. donc ñii xelal Amadou Ba nañu moytu mm-hmm. yu mel noonu di ci profito di def seen communication te nga gis ni mm-hmm. am na guerre boo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi soutenir candidat yooyu mooy favori yi ñu ngi def ay communication yoo xamante ne baaxul ci seen parce que communication boo xamante ne dafay niiroo presque polémique dafay niiroo jay sa euh, candidat loolu taxul sénégalais yi ñu nekkul ci benn Bokk Yaakaar wala ñoo xamante ne dañoo bëgg Macky Sall parce que am na ay liggéey bu mu def fii mm-hmm. mu ne ñu ne man ku ma Macky tànnal rek dinaa ko jël ñooñu parewuñu pour voter ñu mel nii parce que ñooñu ci seen bopp déjà wane nañu matuñu pour vraiment jiite coalition Benno Bokk Yaakaar donc ci loolu mm-hmm. il faut que nit ñi éviter mm-hmm. ñoom ñi nekk favori yi ak ñoo xamante ne certainement Macky Sall sax daf leen bàyyi ñuy kambambaalu ñuy wax mais moom am na koo xamante ne moom la yaakaar te fi ñuy jëm nii mm-hmm. ci ay euh, pëccëxoo ak division la war a la gën a niiroo quoi. d'accord ministre bu yor wàllu mbay mi Aly Ngouille Ndiaye moom itam yàgg na candidat la euh, ci ab émission télé euh, nee na parewul teggi tànkam euh, lu ñu mën a comprendre foofu. lu ñu mën a comprendre ak lu ñu war a jàpp mooy Aly Ngouille Ndiaye dafa bëgg a wax waa Benno Bokk Yaakaar wala en tout cas président de la République man nga war a tànn cest que tey man ku ma tànnul ma tànnal sama bopp damay xaar nag dinaa dem ba cappandaw bi donc. il faut que ñooñu ngeen comprendre ko noonu Aly Ngouille Ndiaye moom dafa jàpp ni moom mooy meilleur candidat candidat bu war pour benn Bokk Yaakaar parce que nit la boo xamante ne tamit am na expérience ci mbirum état ñoom ñëpp am nañu eh, eh, eh, euh, comment dirais-je expérience ci mbirum état parce que ku jël Amadou Ba nekk premier ministre euh, en ce moment là nga gis Amadou euh, Abdoulaye Daouda jàlloo moom tamit am na lu mu géré ci mbirum xaalis xam ko même bu dee Amadou Ba ñoom ñoo nekkoon ci euh, impôt domaine yooyu yëpp xam nañu euh, rouage euh, administration mm-hmm. Boun Abdallah Dionne moom tamit nekkoon premier ministre nga gis am na ñaar premier ministre wala ancien ak actuel premier ministre mm-hmm. mu am tamit koo xamante ne ministre de l' intérieur la ak agriculture te intérieur agriculture mm-hmm. dañu am doole. ku gérer xaalis ak koo xamante ne sécurité ak mbirum mbéy la. Mhm. nga xam ni ñooñu ay ay ay ay kilifa la ay ay kilifa la yoo xamante ne kii na mais Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. dafay won ni que man la man la du keneen. Mhm. bu ñu jëlee keneen ci sama jàngat mooy Aly Ngouille Ndiaye dafa bëgg wax ni bu dul man keneen du du keneen te bu dee keneen la man dinaa taxaw. thème pour que ma jël sama responsabilité samp sama dënd pour euh, vraiment Euh, dem ci élection euh, février deux d' accord ñu desandi rek ci camp pouvoir bi ba jamono ji mu mel ni euh, xalaat bi nekkul benn ci dissolution parti PASTEF dégg nañu Jean Paul Diaz nee na boobule dissolution lu ñu exagéré la lu ñu waroon mën a éviter la ndax APR wala Benno mënul xajaloo waaw loolu déjà. xajaloo euh, euh, APR ak Benno Bokk Yaakaar commencé na keroog bi président de la République ne moom du nekk candidat deux mille vingt quatre compte rebours ko di ni ko tubaab yi français yi di ko waxee compte à rebours foofu la commencé ci seen féewaloo ñu bëri naam dañu euh, xam ni bokkuñu gis-gis wala parti ak Pastef mais am na ñoo xamante ne ay xarit lañu ay sénégalais comme man ak yow bokkuñu euh, média mais mhm. bokkuñu gis-gis mais quand même am na loo xamante ne Sylvie bu taxawee woo ma ma tontu ko mhm. donc loolu euh, sénégalais moo mel noonu dans ce cas euh, position wala voilà, posture Jean-Paul Diaz man posture boobu laa yaakaar ni moom la ñu war a am parce que mënuñu toog ñu xam ne soixante soixante trois peut-être la ñu njëkk a gis ay dissolution parti ñu yaakaar ne parti unique moo fi moo ñu dem soixante trois ans après ñu ñëw bi ñu ne ay dissolution euh, parti euh, politique loolu dafa war a euh, dañ parce que Sénégal dafa liggéey dañoo xeex ay bakkan root pour tout simplement nit ñi mën a consolider seen démocratie mm-hmm. Abdoulaye Wade mm-hmm. amoon na temps boo xamante ne bu mu nekkee président de la République am na ay discours yoo xamante ne waa APR notamment ak euh, euh, Macky Sall amoon na ko mënoon na tax ak doole bu mu amoon mu dissout APR parce que dafa jàpp ni peut-être APR mii moom moo war a indi ay ay problème mais moom ci euh, consolider démocratie bi tax na ba mu bàyyi parti bu nekk mu dem te loolu dina am impact ci Benno Bokk Yaakaar notamment APR parce que moment bi problème bi ñu am pour euh, euh, désigner seen candidat pour deux mille vingt quatre tax na ba ñoom ñu imposer yenn parti politique yi notamment de l'opposition ñu ban a am seen activité politique da ngay gis ni waaye Yewwi Askan yi pour benn point de presse wala conférence de presse gendarme yi ñëw barricadé seen siège loolu ñaaw na loolu xar kanam bu baax bu ñuy refléter ci euh, suñu démocratie Sénégal donc tey problème boobu mooy Jean Paul Diaz lumu wax man yaakaar naa ànd naa ci à cent pour cent parce que c' est excessif mooy jaay doole la parce que duñ ma ne 2012 ba tey vraiment waa APR wala Benno Bokk Yaakaar amul kenn ku tenir benn propos boo xamante ne mun nañu jàpp ni vraiment c' est euh, mun na euh, tas euh, parti bi. Mhm. parce que Macky Sall def na ko beneen leader parti Benno Bokk Yaakaar def na ko def nañu fii 23 juin ku nekk gis nga combien de fois c' était violent combien de fois ay nit attaqué ay Sénélec ay siège Sénélec donc ay bureau Sénélec je pense que bu dee dañuy jàpp ci loolu yaakaar ni ne Pastef kese la loolu mënul nekk. donc dans ce cas li ñuy def mooy. Mhm. ñu delluwaat suñu suñu xel xam ni. parti euh, politique du Ousmane Sonko kese du moom moo nekk ci récépissé bi ñu ne voilà Ousmane Sonko moom moo moom bii parti moom moo yor signature ba moom ñu jël waxam yi mhm. ñu ne loolu moo waral vraiment il faut ñu tas parti bi loolu je pense que baaxul si suñu démocratie te il faut que ñu gën a waxtaan pour que bu ñu demee ci deux mille vingt quatre vraiment vingt cinq février deux mille vingt quatre ñu am ay élections yoo xamante ne vraiment ku nekk dina bokk sans que mu am violence quoi parce que violence boobu mu ngi gën reculer Sénégal te loolu ñaaw na. laaj bu mujj bi xalifa Sall njiital taxawu Sénégal mu ngi euh, gën di euh, ngoy nee na moom euh, ci Yewwi Askan Wi la bokk te jàpp na ni kenn mënu ko fa dàq lu ñu mën a dégg foofu la wax ñu aussi alan moo des tey ci coalition boobule di Yewwi Askan Wi. ma ne am na loo xamante ne boo leen tegee charte. yow mi ko sooxe c'est-à-dire yow yaa am xel xel bi mhm. boo demee di violer da am responsabilité nga génneel sa bopp dem taxaw fale comme ñoom ñu ne dañuy taxaw Sénégal nañu taxawal Sénégal ci loo xamante ne bokkul ci Yewwi Askan Wi parce que lu muy layoo ni ay mbirum la yoo xamante ne ñoom dañuy jàpp ni politique Sénégal foofu la toll te xamuñu ni conscience sénégalais dafa dépassé foofu mënoo nekk ci biir kër lu ñu wax nga dem boole leen doo toog ak kër bu ñu demee béy yow doo béy ñu ñëw pour taaj seen bool nga ne non yoo kenn mënu la tere añ loolu mënu nekk soit da ngay jël seen responsabilités te loolu bi Yewwi amee seen charte dañu demoon ne ñoom il faut que mu am benn coalition bu am doole pour faire face à la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu teg seen charte ñu ne lii la ñu bañ lii la ñu bañ lii la bañ gis nañu ay ay ay ay dialogue yoo xamante ne Macky Sall def na ko mais respecté ci benn ponk benn ponk respecté ko donc ñun bu ñu bu demee ci yenn euh, comment dirais-je dialogue yi ñun Yewwi Askan Wi du ñu bokk. Khalifa Sall génn mu ne non man sama intérêt bopp ak sama euh, intérêt parti moo ma gënal fuuf l'essentiel ma bokk élection deux mille vingt quatre yi. Mm-hmm. ñu ne naam d'accord loolu garaaw ngeen dem assemblée nationale. waa taxaw Sénégal nekk foofu di xuloo di ŋaayoo ak waa yeewi askan wi notamment waa Pastef ñu ne c'est pas grave moment bi ñuy jàpp eh, ñaar député yi pur yooyu ana taxawaay eh, taxaw Sénégal ñu ne taxaw Sénégal mais amuñu benn taxawaay. Mm-hmm. ñu dem ba élection nouveau bureau as eh, comment dirais-je mairie bu Dakar nga jis seen jëfin de telle sorte que yow da ngay jàpp ni. lii partile boo xamante ne mu ngi mouvance présidentielle. Mhm. donc bu ñu demee ba foofu charte bi waxul loolu yow ngay def loolu je pense que dangay am grandeur puisque da nga bëgg a jiite dëgg munoo toog nga nekk président de la wala sa parti gagné Sénégal nga ne da ngay dem di euh, combine ak waa Guinée Bissau ba pare nga ne non non non kenn mënu ma génnee Sénégal loolu auto euh, euh, autocrate moo koy def. nit la boo xamante ne démocratie waxu ci dara moom yëfu boppam lay xool ak ñi ko jege je pense que fu mu toll ne c'est acté Khalifa sal bu yeewi askan wi notam notamment moom nekkatul président de de euh, comment dirais-je de la conférence des leaders donc conférence des leaders on t'a pas convoqué ñu am réunion boo xamante ne yow kenn convoqué la noo noo ciy bokkee. Mm-hmm. donc dans ce cas Khalifa Sall de facto. bokkatul Yewwi Askan Wi il faut que ñu ak assumer mhm. ñu nekk fii nekk fële nit ki mënoo teg sa tànk fële wala di di di ñaar euh, lapin mhm. nga ne ñaar yi da leen di jàpp loolu mënul nekk comme ñale dañoo jàpp ni bokkatoo ak euh, ci ñoom mhm. da ngay am grandeur génn ngeen bàyyi jël télévision di tàkk micro di bëgg a rey sénégalais parce que sénégalais soxloo ñu genre politique bu mel noonu d'accord Famara Niasse analyste politique Rewmi FM sant na la gërëm na la maa leen di fay bu baax a baax di gërëm képp kuy réew euh, mi FM gërëm la Sylvie Faye jërëjëf